salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. tur bi naka la. Saliou Ndir Pàkku Lambaay. Saliou Ndir Pàkku Lambaay. Mhm. gars yi la ñuy ñëw fi Pàkku Lambaay ñun yow yaa xam làmb. non làmb du man rek maa xam de làmb gaa yëpp ko xam. gaa dañ lay tooñ rek. Ah, am na lu am na lu ma ci xam lu ndaw rek. waaye mais li ma ci xam bariwul de. waaye. sànq après dañu duggaat ci waxtaan bi mais dañ ñëw pour tey pour combat Ndiaye Tine Ndiaye Tine boo ko waxee tudd Bawal. Mhm. looloo waral Ndiaye ñëw fii ndax fii ay mbokk Ndiaye Tine ñoo fi nekk ay mbokk Bawal Bawalan loo ñu wax si Ndiaye Tine. non Ndiaye Tine moom euh, miinu ma ko noonu quoi parce que daaw xaw ma daaw jéeg tëgg nañ ko moom ak Baye Mandione Junior ñoo ko tëggoon Kajoor production. en tout cas bawal bawal la comme man mais li ma xam ci moom bari na bariwul mais li la li li nga xam ne moom la mu mbër soxla moom laa gis ci moom bu ñëwee day indi entraînement day def fulla ak fayda loolu moo nekk ci moom te bépp mbër bu am ak moom combat na nga xam ne am am nga combat du fooy làmb mbër la mën naa bëre mën naa xeex waaw musta ñëw ci làmb summeeku nga ne mbër bi acam heure bu ñëwee day indi état bu baax xeex bëre te loolu lañ soxla ci làmb te day te mbër buy màgg la xale la heure bu ñëwee ren état bi muy indi ren ak bu dewee déwénee du nekk benn te loolu lañ soxla ci làmb yow xam nga làmb am na mbër yoo xam ne ñu ngi ci làmb mais heure heure da fi nga leen gis ren bu déwénee foofu nga leen di gis Ndiaye Tine bokkul ci mbër yooyu mbër la boo xam ne chaque combat bu ñëwee day indi état boo xam ne bokkul ak état bi mu yoroon te loolu nag na ci gars yi bàyyi xel ci mbër mu mel noonu mais nag mi ngi bëree mbër boo xam ne Guiro mbër la maanaam danga koy gis tolluwaayam ni mu toll dooleem romb na foofu maanaam doole ci biir la nekk. maanaam doole ji ci biir la nekk xam nga ñu ne sportif la. Giro amul volume mais dafa am kàttan dafa am doole néewul doole ko du mbër bu néew doole li may ñaanal jaay daal te di ko ñaax bu mu ko xeeb parce que mbër la na seetaanaat ay kombaam xam ne ki muy bëreel champion la comme moom mu teg làmb ji ci yoon respecté ko su ko respecté daal mën naam dara mais bu ko respecté wu tamit mën naa am lu ko lu ko bett jàpp nga ni maanaam si bëri la nar a jeexee wala si xeex parce que bu ñu nee Guiro Seras ñëpp xam nañ xeexkat la. non combat bi moom bu la ci wax dina am xeex dina am bëre dina am xeex dina am bëre ñoom ñaar mënuñoo daanante te xeexuñu il faut ñu xeex. est ce que xeex bi arrangé na Ndiaye na Ndiaye Tine kenn daa koo xeex kenn gënu ko bëgg xeex Ndiaye Tine xeexkat la mën naa xeex mën naa bëre Ndiaye Tine lépp a ko arrangé ci combat bi parce que xale la dafa am fu mu teg bëtam. Ndiaye dafa am fu mu teg bëtam quoi dafa bokk ci làmb nekkut mbër moo xam dafa ñëw nii rek dugg ci làmb non dafa am lu mu bëgg fi ñoom Sa Thiès àgg ak ñoom Reug Reug ak yooyu foofu la Ndiaye Tine teg bëtam waaw. combat bi dafa nar a gaaw wala dafa nar a jeex est-ce que parce que ñaar mbër yëpp booy xool ay raakaan lañ. non Ndiaye nag euh, ak ak ak man gisuma ci ñoom combat bu yéex combat bu yéex. gisuma ko parce que ñaari attaquant lañ xam nga mbër bi nga xam ne dañ koy tëgg nga naan day yeex mooy mbër bi nga xam day leewaatoo di def ay non non dañuy dox daje du xam nga démb seetaan naa signature bi dégg ko Guiro Séras waatal na ko nee du nee du seqi benn tànk te loolu mu wax loolu lay def Guiro Séras la Ndiaye Tine ko acca nañ ci dem ñoom ñaar combat bi du man gisuma loolu waaw man man moom gisuma loolu. ku si am victoire fa la la mën a yóbbu si ñoom ñaar. non ku ci am victoire fu rëy fu mag la lay yóbbu parce que làmb instant bi làmb moom na ngay daanal rek làmb moom ñoom ñaar ku ci am victoire day am fu mu lay yóbbu parce que am na état bu lay jëlee am beneen fu mu lay yóbbu parce que am na yeneen mbër yu nekk seen kanam yoo xam ne yu leen di xaar la te ku ci am ndam dangay ngay am combat. jàppoon ni euh, kii di Guiro moo ëpp expérience kii di Ndiaye Tine. non Ndiaye Tine am na expérience non Guiro moom moo ma Ndiaye ci làmb mais expérience ak mag ci làmb du benn. jaaytin mbër la de am na expérience ci làmb de am na expérience ci làmb. looy wax suñu naan njaaytin mënul bëre moo tax mu dugg ci làmb. non njaaytin moom gisuma ko ko dàq bëre tafaatin bi ñuy wax sax dàq te bëre njaaytin yàlla xam na ko ñooñu xamuñu ko njaaytin mbapat na dafa mbapat ci àll bi avant muy ñëw ci làmb dafa mbapat àll tundu reefan bi dafa mbapat ba tas man seetaan naa ko seetaanati ko seetaanati ko mbër la de ku la na mënta rek xamul làmb. mën naa bëre trop mën naa bëre fonk na bés waaw man li ma gën a neex ci mbër mooy mbër mu fonk bés fonk na bés te day te moytu mu mbër mu nangoo entraîné voilà. day wax mbokk mbokk baalu bawal yi. noo ñu jàppale ko xam nga xam nga bawal dëgg la ñoom boo xoolee làmb stade yi bawal bawal yi ñoo koy feesal est xam nga loolu. waaw bawal bawal yi ñoo gën a bëgg làmb boo doon jaay billet cinquante mille ñoom ñooy dem sañselu rafet dagg billet ñëw toog. li may ñaan moo ñu gën a jàppale mbëru bawal yi ñu gën leen a jàppale gën leen a dooleel man loolu laa leen di ñaan quoi ñu gën ko jàppale quoi nañ ko gën a jàppale feesal stade bi del feesal stade bi del di jàppale mbëru bawal yi te ki ko ki ko tëgg tamit bawal bawal la comme ñoom ku baax la Fallou Ndiaye sama xarit la sama lépp la vraiment làmb da ko war a jàppale parce que def na ci làmb lu ne jàmbaar la gaynde la te loolu tamit lu am solo la di yor sa Fallou Ndiaye yor na liggéeyam bu ko neexoon mu toog bañ a dugg ci làmb mais daf lim yor mi ngi koy delluwaat ci làmb di jàppale jeunes yi nekk ci làmb kon làmb dañ leen a war a gestu ñu mel na ñoom dañ leen a war a gestu bu baax a baax a baax a baax. yéen tëgg combat Gris ak Ama Baldé. Gris Bordeaux ñoo ko tëgg dugul moteur Mama Lamine mbay guy gi armé ñoo tëgg combat yi combat yooyu garaaw la de. non combat yu garaaw la lamb ju garaaw lañ tëgg maa ngi ciy sant nag suñu président muy Ibrahima Diop Kajoor production maa ngi ko ciy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko xewal may ko wér ak ak njabootam ba bu bis baa liñ ci yaakaar lépp ñu am ko ci. na ngeen tëgg combat yooyu. non yombul moom lamb jooju moom ku la ne yomb na moom day wax lu ko neex ay bit c'est cent cinquante millions moom yombul loolu moom ku la wax yomb na moom day wax lu ko neex yombul. yomb na yombul parce que mbër yi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ko seqal ay gor lañ wax dëgg yàlla waxaale yi yàggul combat yi ñoom ñëpp raisonnable mais nag làmb ji boo gisee mën la yombul sponsor mooy problème mu làmb ci parce que nga génne lu mat ay cent cinquante millions def ko ci benn journée te amoo benn sponsor bu la jàppale loolu tamit dafa doy waar loolu yombul say pexey bopp ngay def say moyens yi bopp pour génn ci loolu ku la ne yomb na day wax lu ko neex yombul diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé comme comme maanaam Gris Bordeaux la mooy avantage la am ci combat bi Ama Baldé la mooy avantage am ci combat bi. non xam nga gars yi dama leen koy wax te duñ ma dégg mais ay Gris ay Modou ay Balla ay Eumeu Sène ñooñu amatul lu ñuy perte ci làmb ñooñu amatul lu ñuy perte ci làmb yaa may dégg amatul lu ñuy perte xale yi nga xam ne ñoo bëgg a dem àgg fa ñoom ñooñ ñoo am lu ñuy gañe ak lu ñuy perte. mais Gris Bordeaux moom li ko war mooy mu entraîner ba nekk ci état ñëw taxaw Gris Bordeaux neexul bëreel de ama xale la Sénégal gépp moom lañ def favori mais am na combat bëriwul combat bu yomb Sénégal nag ñu bëri dañu yaakaar ne combat bi combat bu yomb ci ama la mais yombul de làmb moom ku la ko yombal rek moo la ko xañ ku la yombal làmb mbër buy bëre nga naan ko ki ngay bëreel yaa ko man ku ko wax mbër rek yaa ko xañ combat bi làmb moom amul bàyyi benn détail parce que Gris mbër la dafa am lu mu bëgg wanewaat parce que dafa ay xale yu bëri nekk ci kanam yoo xam dafa war a bëri ak ñoom te loolu li koy may li ma koy wax mooy mu entraîné bu baax contact bu baax ñëw nekk ci état parce que combat bii passé manque entraînement moo ko xañ nañ ko wax Gris sama xarit la dama koy wax dëgg wax dëgg yàlla combat ak Balla Gaye bi ñàkk entraitement moo ko xañ yaa ngi wax man Ama Baldé ku ko diggal ne combat dafa yomb yaa ngi koy nax moom boo déggee gis ay kàddoom boo ko waxee sax si Gris Bordeaux day mel ni ku la fulaalu mais si Modou lay tontu nee na sax benn maanaam nga si sët la rek maanaam daal ñëw sa kaw nga faas. loolu loolu nit ñi ñoo koy wax rek Ama Baldé da leen di nelawal rek. Ama Baldé tëddut nelawut chaque jour mi ngi entraîné Ama Baldé moom du fooyee bës mbër la mbër kaamil la ku ko am am nga combat ama mbër kaamil la mën naa bëri man naa xeex am na fit ku ko am am nga komba loolu dañuy wax rek Ama Baldé bisam bii nii mu nekk nii moo ko ñor te mi ngi koy entraîné bu baax a baax a baax a baax te bu jour baa li ma la wax nii di nga ko gis bu sumi ko ñëpp da xam ne entraîné Ama Baldé du foye làmb mbër la ku ko am xamal ne am nga combat du combat bu yomb ci giri de day nax nit ñi rek naan ay lii di wax di jëlale mais combat bi combat bu ko ñor la parce que combat capital la Ama Baldé bu ko Gris Bordeaux daanee loolu beneen affaire la fan la jëm. Modou Lo am lu même bu dul am lu ñu wax man sax Modou Lo dama bëgg ñu tege ko ne nële parce que mbër moom su amee combat komba bi mu nekk signé ko muy làmb na wan nan wax ci combat boobu mais ay Modou Lo sax loolu loolu du débat nan wax ci Gris Bordeaux combat bii mu am mooy combat na entraîné bu baax daan Gris Bordeaux loolu mooy wax ci Gris wala Ama. bu ñuy moytu maanaam Gris Bordeaux bi moytu Ama si lan la ko war a moytu parce que dañuy jàppale bu fekkee xeex la rek Gris Bordeaux moo avantage. non Gris Bordeaux buy moytu Ama ci bëre la koy moytu te man jàpp naa ne combat bi ci bëre lay jeexee parce que Ama dóor ko sax taxul nga daan ko parce que moytul ma xale bu entraîné am doole gëm li muy def Ama booy dóor day ñëw boo dóorut day ñëw. kooku nag soo ko amee lépp nga war a pare da war a pare ci bëre pare ci xeex parce que làmb li mbëri xamul làmb du xeex kese làmb dafa am finition komba dafa am loo xam ne ni moo koy jeexal muy bëre mbër mën mbër mën nga dóor ba mu jeng mais bëre moo koy jeexal Gris Bordeaux ay armam yëpp la war a indi muy bëre ak xeex mais xeexu kese kese kese kese jeexalul combat parce que Ama boo dóoree day ñëw boo dóorul day ñëw mbër boobu nag soo ko amee da ngaa war a pare ci lépp muy ci bëre muy ci xeex Ama moom moytuwul dara xanaa kay giri la ñuy wax mais Ama moom lu muy mor lu muy moytu boo xeexee baax na boo bëree baax na moom loolu lay wax te loolu lay appliqué. mais dañuy xool su fekkee expérience Gris Bordeaux moo ko ëpp expérience moo ëpp expérience Ama si làmb wala moo ko gën a yàgg si làmb te Gris Bordeaux gis nañ chaque jour combat mi day nangoo yàgg Ama Baldé tamit c' est presque la même sos est ce que maanaam yàggaay boobu nekkul benn inconvénient benn faiblesse si Gris Bordeaux. non yàgg comme. maanaam combat bu yàggee. noo combat bi du yàgg. si wàllu physique. non combat bi jëm du yàgg. combat bi non du yàgg. combat bi moom ku yàgg da nga du yàgg. arbitre bu soufflé combat bi bu ñu dalantee combat bi jeex man maa wax lii. parce que dañoo gis Ama Baldé mu yàggee gis nañ tamit euh, moo euh, Siteu tamit seen bëre bi ah pas Siteu moog Siteu mm-hmm. dafa yàgg moog Balla Gaye tamit dafa yàgg. non Gris ci mbëri mi bëreel la. Gris moom na xam ne mbër yi mu doon bëreel ak mbëri bi muy bëreel du benn Ama Baldé déggoo li ma la wax képp kuy bëreeg moom boo taxawee combat bi du yàgg. ma nag ngay daw wala nga génn saako mais Ama moom jamono jii ñu toll képp kuy bëreeg moom soo taxawee combat bi yàgg te man maa la ko combat bi du yàgg. xaw ma luy xew nag que le gañ ñoom ñaar mais combat bi du yàgg man maa la ko wax. dafa lu bees lu ñëw temps yi. Mhm. maanaam grand contre petit. Siteu moo ko njëkkee si Papa Sow daan Papa Sow. Mhm. jàppoon ne avantage boobu mun na am si Ama Baldé ma daan kii di giri. non non mën na nekk parce que làmb dañ ne sport sport xale moo koy def làmb xale. loolu mën na nekk parce que am na tamit ñun jàppee ay mag nekkuñu ay mag mag lan ci carrière mais nekkuñu ay mag mag yéen leen teg mais làmb loolu mooy problème parce que boo xoolee grand contre petit am boo gisee man Balla Gaye mën naa ko lim def mu jël ñeenti avance. dama ko naw parce que lamb dafa dépassé ay du ma bëree kee keelaay bëree la kii maa ko raw lamb munoo ñeenti mbër rek nekk ci kaw wala juróom ne ñoom kese ñooy bëri ñoo tolloo non noo non non lamb loolu amu fi lamb ñetti ñetti étape la da ngay bëreeg say morom bëreeg say mag bëreeg say rak te ñoom giri ci loolu lañ toll bëri nañu ak morom daan ñenn ñenn ñi daan ñu bëreeg seen i mag daan leen kon donc li ci des mooy bëreeg seen i rak lamb moom gone yi ñoo fi jëlee mag ñi chaque jour gone yi ñoo fi jëlee mag ñi. bul sonn ñoom Tyson bi ñu ñëwee dañ fay fekkan ay ñoom moor Fadam ak ay ñoom Tubaabu Joor ak ñoom jële leen fi ñëw ñoom Tyson bi ñu fi ñëwee ñoom Balla Gaye ñoo leen fi jëlee ñoom Gris Bordeaux ñi ngay gis ni ñoom Ama Baldé ñoo leen fi jëlee ak ñoom Reug Reug mm-hmm. loolu mook làmb ñoo ànd ku ko bañ doo bëre mm-hmm. làmb dafa am trois étapes da ngay bëreeg say morom bëreeg say mag bëreeg say rakk loolu moo fi am képp ku fi toog na du ma bëreeg say rakk doo bëre làmb loolu amul làmb moom da ngay bëreeg say mag bëreeg say rakk làmb jeex noonu kese la sport moom boo gis moom noonu lay demee voilà. Siteu pay na si poisson ñu bëri ñoo ngi wax naan moog la de guerre. non moom sama rakk la xam naa ko mais man sama wàllu bopp man nag sama xalaat laay wax waxewuma xalaatu sitta parce que déggantewuma ak moom gisanteewuma ak moom waxloowuma mais bu doon man maay Siteu man du ma jël la de guerre. lu tax non dama ko dul jël dama ko dul jël moom xam na. man bu ma doon Siteu du ma jël Lac de Guiers. Lac de Guiers day diis moom. non même bu dul diis sax. wala du bëre. non bëreem du bëre ba du neex. bëre ba moo dul neex quoi man bu ma doon moom du ma jël la de mbër yu mën a jël bare na fi. mais dañ ni maanaam Siteu même fekkee abal Baldé am na combat amaat na combat wala ni combat boobu moo nekk loo xam ne moo moo nar a indiwaat Balla Gaye Modou Lo wala lamb bu bëggee dekki. il faut ñu tëgg Ama Baldé Siteu. non man man Siteu même même bu ma doon mooma du ma xaar kenn duma xaar Ama Baldé Siteu guy gee ngi fi ramas sama guy guy amul combat moom par na ci combat. pourquoi pas combat boobu mu jël ko leeral ko guy gi da koo daan nee guy gi mënu ko na jël guy gi leeral ko bu ko defee bu ko daanee mu xaar Ama Baldé pare mu bëreeg Ama Baldé mais bu doon mooma du ma xaar benn mbër du ma ciblé benn mbër naan moom laay bëreel jërul muy xaar kenn combat bi nga xam ne daal man bëgguma ko. mooy combat am ak la dëgër te est ce que sax xam nga nit ñi ngi koy coow mais xam nga làmb du mbër moo koy tëgg amateur tëggul làmb làmb promoteur moo koy tëgg est ce que promoteur yi bëgg nañ combat la dëgër ak ak ak ah, mais amateur yi tamit amateur yi ñoom ñooy diriger làmb non ñooy diriger mais ki yor xaalisam gis nga làmb ba ko amateur yi diriger xam nga làmb dafa amoon ay sponsor gars yi bu ñu nee combat sangam combat sangam journaliste yi wax ci promoteur euh, sponsor ñëw taxaw ne combat bi mën naa ci nangam promoteur tëggu ko léegi gars yi xam nga lu ñuy xool ay moyens gars yi dañuy xool mbër buy indi stade boo bëree mu neex boo feccee mu neex boo ñëwee indi supporter du stade bi mais mbër boo xam ne mënoo am ñaari kaar gars yi duñ la tëgg ba pare di fayeeku lu cher dañ te dëgg làmb boo bëggee sa àdduna di la topp wala sa waa gox di la topp dangay ngay bëre lu neex fecc lu neex xam fooy taxaw mais mbër boo xam ne doo bëre ku ñëw ci sa làmb mer loolu gars yi bëgguñu ko man nag ba ma doon mbër man ba ma doon sita la man du ko jël merci waaw kontaan nañ. waaw kontaan nañ may ma tuuti tamit ma gërëm. pàkku làmbaay bi ngeen ma fekk. parce que pàkku làmbaay bi ngeen ma fekk man fi laay liggéey nekk fekk samay nawle nekk fekk samay xarit ak samay mag ak samay rak ak samay papa. sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp maa ngi sant sama grand frère Dampuy ñoom Mbaye ñoom lamin Sarr ñoom Pape fay ñoom ñëpp maa ngi leen sant ñoom Mandiaye ñoom ñëpp maa ngi leen sant. maa ngi sant tamit nag Ibrahima Diop Kajoor production maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax. merci ok kontaan merci ko